dañ ñëw léegi si yow am mi nekk ci kër gi sëñ Xaadim mm-hmm. nekk suñu collègue bu baax moom mi ñuy teewlu ñu koy bu baax a baax moo am laaj bu mu yóbbante suñu ak sa mi ngi lay laaj ni lan moo taxoon Serigne Touba wax ni sëñ Massamba mi mat naa ko ñett waaye mooy mat na ma ñett waaw lay dimee xam nga sëñ Massamba man daanaka jàng rek laa man aha aha jàng lañ la war a la dëgg la waaye lu ma xamul wala lu ñu bindul ci téere yi duma ko wax ndax jamono bii dañoo weesu foo naan sëñ Tuubaa nangam ak nangam ak nangam ak nangam dëgg la ndax loo wax nit ñi dañuy toog ci seen saal tàppe ko ci seeni téléphone laaj ba xam li nga wax ci sa xel nga ko teg wala ci xam-xam nga ko teg téere yi gën boo mënee jël micro bi rek eh, déggante bi voilà merci. sëñ Masamba Mbacke. Hmm. ndeyam soxna Fatou Ndiaye Seye a ko doon denc. wax wax naa ko sànq. waaye sëñ Touba. gis soxna Faati Isa ci kër Lat Joor booba baayam day ateel Lat Joor xaali sëñ tubaa daal di day baayam ni ko soxna Lat Joor jii gis naa ci moom wàlli woo xamante ne nii mën naa ramu ci askanu kër ndayam ak kër baayam ñu sa sawara yayoon te xam naa ne Lat Joor mii du jur wàlli yu koo jur sëñ Tuubaa wax baayam sëñ Mor Anta Sali sëñ Mor Anta Sali ko loolu bu mu jëm kaw bu ko Lat Joor déggee da lay ndax buur la te mooy buuru sunduy moo ñu yilif man xaadim kese laa di ko loolu bu mu jëm kaw de fekk Lat Joor mi ngi leen di may nopp Lat Joor bàyyi soxna si ni ko xanaa sa doom ji xanaa xamoo ni lu mu wax yàlla ak wax <laughs> ni ko xare Samba Sadio bi ba ngeen ate ba noppi mu attewaat ci li ngeen atte woon keroog laa ko bàyyee xel ba tey jii <laughs> ni ko sa doom ji lu mu wax laa ko wax daal di bàyyi soxna si sëñ Mor Anta Sali jël ko soxna si la joor yoroon soxna Fatou sa Dieye boobu am na moom Mamar Issa ba pare noppi nga loolu kon sañ tubaa moo ko jëkk a moo ko jëkk a séen moom ca soxna sa. dëgg la sëñ tu sëñ Touba moo jëkk a séen. ma Masamba Mbàkke ca soxna sa. te sëñ Touba loolu yàgg na koo def ndax sëñ mbay mii sëñ tubaa xool way juram ni sëñ ma sa Amadou Saxir Mbay ni ko kii de ndax wàllu yu kamaale ngi ci woo xamante ne nii xutba samaanu jamono. juramu juramu waa waa jamonoom la. Baye Sam Baye ñu dénk Ajaratu Fatam mu de mu der maam Cheikh xaar ca tuuti ndax problème mu caste yéen ñu jàng tubaab xam ngeen caste bëgguma leeral dégg nga sëñ Tuubaa wawaat ko soññaat ko ni ko jël ko wala ma jël ko jël ko wala nga jëlal ma ko maam Cheikh door koo jël am ci sëñ Sam mbay mi waaw waaw dëgg la dëgg la waaye sëñ Masamba sëñ tubaa ko jëkk a gis ca na Faati Say Jéy mu ñëw jël ko Maam Mor Anta am ko ci bi mu ko ci amee it yàlla dogal fekkiwul bi muy gane àdduna bisu tudd bi ñu war koo tudd sëñ Touba daal ni taxaw leen ma laaj ko wéy juram ku mu koy tuddee dugg ci xabru bi dugg ci xabru sëñ Mor Anta génnaat ni leen nee na ma tudde ko ko ma Masamba Anta Ceebo dëgg la ah waaw bi ñu toogee bi ñu tegee miraas mi di ko miraas te sëñ Masamba Mbàkke àdduna ñuy ñuy sëñ Mor Anta Sali sëñ Tubaa dana leen bàyyi leen ci cëru góor <laughs> ci mbir miraas mi ci miraas mi ne man nag bu leen ma sedd Ceerno it maam Ceerno Ibrahima Faati ne bu leen ma sedd séddoo naa sëñ Tubaa Ceerno Ibrahima sëñ ma sëñ Tuubaa ni bàyyi leen ci cëru góor cëru góor boobu mooy sëñ Masamba Mbàkke kon moo ko jëkk a gis te soxna sax benn moo digal woy juróom it ni ko jël ko ñaar moo ko wutal tur wu ko tuddee it ñett moo ko jàngal alxuraan it moo ko dalal yabal ko ci fépp foo xamante ne nii jàng na fa sëñ Masamba Mbàkke ba làq xam-xam yi doomi soxna war làq mu fare ko nag ci xasaayit yi ci mbind mi mu defal ko yit lu mu sa defal kenn sëñ Masamba Mbàkke ndax sëñ tubaa nit ñi ñëw nañ ci moom sax ni ko dañoo dañoo dañoo dañoo bëgg nga ñuy jox ñuy maas xasida yi ni ko sëñ Masamba Mbàkke di maase mu ne leen seen borom moo ma digal ni naa jox Masamba xasida yi waaye du sama coobare yéen seen suñu borom moo ma ko digal. doy na loolu doy na boobu na doy na na. toftal na ca it. moo ko moo ko wutal aw tur. Mhm. daanaka moo ko créé. mu xam ko yam ci moom daanaka sëñ Massamba sëñ Fallou lay maasal. walaay ndeysaan. moo tax mu ni sëñ musaaka ba may wolofal wolofal ba. Mhm. dani ca moom at. la sëñ Touba ni ko Cheikh Massamba Mbacke man sëñ Touba maa ngi ca xalwa te yow yaa ngi ci jalwa lu ma war a bind bind naa ko ma ngi ca ful ko lu war a génn na ko génne lu war te génn it bul ko génne mu ne ca moom at la génne xadaa'iqul fadaa'ili ak wasiratu ruboo daal nuy sànni moo tax sëñ tubaa ni sëñ sëñ Masamba Mbàkke mat na ma ñett mat naa ko it ñett mm-hmm. mat naa ko ñett yi xam nga man bëgguma wax lu tegginuwul ndax sëñ Tuubaa dama koo gëm duma ko saraa sëñ tubaa man duma ko saraa. déedéet doy na. man sëñ Tuubaa gëm naa ko te duma ci dellu gannaaw. jërëjëf ba bis penc. jërëjëf waaye mat naa ko ñett gi. mooy kilifaam mooy woy waajuram <laughs> mooy sëñ daaraam mooy sëriñam ndax sëñ Tuubaa sëñ sama Mbàkke ci sëñ Tuubaa la jébul bëggul woon dëkk bi nit ñi samp dëkk sampul dëkk bi nit ñi wut ay dongo yi wutu ko may lus sol laxasu def nii sama bopp bi njañ li topp ci gannaaw sëñ Tuubaa waaw foo mos a gis sëñ Touba fekk ko fa mu toog. Masamba sëñ ma Masamba Mbacke. jërëjëf ñun nag mooy sunu sëriñ mooy sunu rabu ndëpp. ndax moo boole ci sëñ Touba. jërëjëf. waaw fa benn ndax dañu demoo jëli élément boo xam ne bi ñu demee jëli ko. taalibe gañ fu fekk. Pastef bañ fu fekk. àdduna bépp war nañ koo gis. dëgg la bis bu nekk Masaalikul Jinaan mi nga xam ne mi ngi ci loxo Alaaji Mbacke yu fay ngeen bokk sëriñ Masamba Issa Dieye te lu bari mi la koy defloo am cofeel ci yow Euh, bis bu nekk juróomi junni doomu aadama danañ dogoo Masaalikul Jinaan dem nañ ci liggéey boo xam ne incha allah danañu ko wane. loolu sëñ Fatula. incha allah laaga Ibrahima Mbaye waaw mm-hmm. yi. Mm-hmm. man mënuma cee wax lu bari. wax nga dëgg de dëgg ndax yàllaa nu boole. dëgg la. ndax bi ma ñëwee Ndakaaru ak tey léemu ma ñeent fukki at ak ñaar. Mm-hmm. waaye ku fi am barke wala wërsëg. mosuma la fëgg wax la sama soxla. dëgg la laa ilaha illa huwa bu mu mos a doon wooteel wax ko maa ngi toog